ci ndigalu président ñëw euh, maanaam euh, dajeeg sëñ Bass Abdou Khadre muy porte defal ko compte rendu ci liggéey bi nga xam ne état bi def na ko ci wàllum ndox mi fii ci Touba. ndox ni ren gi maanaam lu fi état bi def bëri na maanaam def na ñeenti forage ñeenti forage yu mag def ko au niveau Kaca Janatu Caween Lamsar ak hôpital mu nekk forage yu nga xam ni euh, euh, maanaam bu ñu ko ci koppar ñu ci def ak yeneen nga xam ni ci ay réparation toll na ci milliard juróomi forage bu nga xam ne nag maaw raxmati moo ko def moo ko gas waaye ba mu ko gasee en réalité état bi moo ci def équipement jottali aussi maanaam taxawaay maaw ci parce que chaque année buñ ci dee ñëw pour amul ndox maaw raxmati day taxaw jàppale état bi ci ay liggéey boobu en yaakaar na ni cette année maanaam du ma ndox mi dana ñàkk wala du ñàkk waaye ci lu ma yaakaar mooy ñàkk bi warul bëri parce que foo xam ni euh, ay millions nit ñoo fiy daje ah dana am pointe bu amee pointe bi nag xëy na mu am quelques perturbations parce que même au delà de ça def nañu ay camions citernes plus de cent cinquante camions yoo xam ne dana disponible ay bâches à eau pour que tout simplement maanaam askan wi bu mu am problème ndox et euh, état bi taxaw na ci Senelec branché na lépp parce que aussi tout ce qui est forage Senelec boo ko branché indi courant bi dañ ci def ay groupe de secours de telle sorte que ni forage yi ñu taxaw te buñu taxawlé gëm na ni problème du am Touba nak ñëpp xam nañu aussi les problèmes c'était au niveau des quartiers périphériques forage yi ñu def day am impact ci quartier périphérique yi. mais légui fële nu mu tuddati ay ay janatu population yi wax nañ ko bañ demee cawen population yi wax nañ ko donc vraiment lolu euh, liggéey bu rafet la te lu ñuy ñaan moy bu sobé suñu borom en tout cas jafé jafé